abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot saa su nekk ay ci réew mi ak ci waa APR yi faa leen di gunge ba ngeen jot ci nguur gi allah maanaam su ngeen ma toppee fa ñuy gàddu ndam li 2024 du samay kàddu njiit réew mi Macky Sall moo ko wax kàngamu APR yam doon dajal niki démb l'observateur yeggee ñu ko yow fa ngay xool juróomi waxtu mooy yàggaay waxtaan wa fanweeru doomu aadama ak juróom yëkkati fa kàddu waaye fale na tere moom seen njiit Macky ngir ñu bàyyi yenn responsable yi nga xam ne fañ leen di ngoro ca seen biir bi mu waxee na kan moo bëgg a nekk candidat APR Diouf Sarr fa yëkkati loxom ak Abdoul Aziz Diop xaaltine bii di ñëw nag moom njiit réew mi fay dalal mu benn bokk yaakaar yi te fileeg fukki fan fay xamalaat beneen ndaje ak kàngamu APR ya te mooy yéen a kaay ko waa APR yi fa wax njiit réew mi na ko fa ñoo bëgg nga tànnal ñu candidat te koo ñu nag doy nañu vox populi na ko ñoom fañ ko caa yokkal na ko ba ci sax benn bokk yaakaar fa ñoo bëgg nga tànnal leen seen mbër laas yéen a kaay ne buntu pale démbu fa xam mbooloo mu bëri mu fa demoon ci askan wi ngir xamal concert tàccu njiitiram Macky Sall ci dogal bu rafet bi mu jël ne du bokk ci wote yi waaye mbooloo ma de takk der yi fañ la sotti ay grenade de lacrymogène tasaare mbooloo ma yàq feet ba maître sa Diop Cissé kenn ci farandoor njiitiram Macky Sall mel ni ku naa leen man de dew ma ca pale ba ngir tàccu waaye fay bind ba réew mi kañ ko jaajëfal ko ci dogal bu rafet bi mu jël ne du bokk ci wote 2024 yi direct news moo ñu ko xamal ah. yaaw seetal maître Nafissatou Diop Cissé fa xam la ne njiitaram Macky Sall kenn du moom lim def nii benn sénégalais dootu ko fàtte jëfu kilifa sàmm kàddoom moo tax faa ko rafetlu keneen ku rafetlu dogal boobu njiit réew mi jël ci ñàkk a bokk 2024 mooy Aliou Lo bu MSL ci l'évidence yéen fa xam la ne faay rafetlu li njiit réew mi def waaye geste bi apaisement la maanaam fay dalal réew mi andi fi jàmm te lii mooy wane ne njiit réew mi fa génn ci bunt bu mag bi maanaam génnin bi fa rafet moom mi nga xam ne mooy candidat monde rural bi waa xàll bi te dëkk ca jaamal mbir kilaan caa yokk ne waaye nag njiit réew mi bu mu arrêté faa bëgg détenu politique ñi ñu jàpp tëj ci kaso gi ñu bàyyi ñu génn organiser élection yoo xam ne fay leer lépp jaar yoon ku mën sa duma ñi bëgg a duma jël raw gàddu gi 2024 waa PS yi ànd ak Khalifa Sall Barthélemy Diaz fa wax ak askan wi tàllal loxo mbooleem waa PS yi ngir ñu ñëw ànd ak Khalifa Sall waaye naka fa gaaruwaale Ousmane Sonko de nee na moom du bokk ka topp ca Ousmane Sonko ca parti ba ñuy wax Pastef muy Birame Souleye ma nga gaar daaw yi yoon ah. yow fa ngay xool fa yëkkati woon ay kàddu yu garaaw jëmale ko ci njiitëram Macky Sall ak Alassane Ouattara ginnaaw ga nag fa defaat beneen vidéo moom Birame Souleye Diop ne fa saaraal fa juum te fa sàkku ci njiitëram mu jéggal ko ak sénégalais yéen a kaay bi ne waaye ànd ak jéggalu na terewut fañ koo xoolu déglu ko ba pare teg ko loxo regard yéen a kaay ne wàllu diffamation moom lañ koy toppee libération na moom koy xam nga lu mu wax ñu ko doon déglu faa def njuumte ci wàllu communication faa jéggalu gars yi ne ko yow la toppee fa <laughs> lu leer ba yegg ca nañ ñi ja moo ne njiitëram Macky Sall fay xamalaat remaniement bu mujj maanaam coppite ci gouvernement bi yow seetal li tax mënta ñàkk def coppite ci gouvernement bi ma nga ca biir yéen kaay ba yéen kaay bi di l'évidence fa ñoo dogalu àtte ci mbiru usmaan sonk ak Adji Sarr fañ koo taf ca ëtt àtte kaay ba bu ndakaaru mu mel ni gars yi fa ñoo yoonu jàpp Ousmane Sonko a ah, faa yaakaar na fàtteegu leen Ismaïla Madior Fall fa fee waxoon ne àtte bi su génne fañ koy taf su pare nag procureur su santaane takk der ñu jàpp ko su booba jàpp de Dakar Presse na ngay wax sax fa ak coppite moom i tamit Pastef Bassirou Diomaye Faye xam nga fañ koo tëj kaso léegi Ayib Daffé moo ko remplacé waale gum maître Ngagne Demba Touré moom fañ ko yokkal garaat léegi mooy général ndawu Pastef yi moo leen jiite ah ñoom ñoo ko tuddee Mbappé moo tax jiite na leen léegi leer la neen lu leer ba yegg ca naññi ja mooy na conseil des ministres démb fa ñoo dëggal projet de loi bi ñu war a yóbbu assemblée nationale wote ko ngir Karim Wade Khalifa Sall bokk ci wote yi di ñëw turbine yéen kaay ñi ko xamal le soleil yéen kaay na gouvernement bi kay fa ñoo nar a sang raxas ba mu set Khalifa Sall Karim Wade ngir ñu mën a bokk ci wote yi si du quotidien na ko njiiti mi lañ dégg woon ca dialogue ba moom la jëfee te waxoon na ko te bu yeggee assemblée fañ koy wote mu gaaw le quotidien yéen na hee faa leen wax nag am na ay risque ci wàllu blocage maanaam Khalifa ak Karim boo moytu duñ bokk ci wote yi de yow fa ngay xool Benno Bokk Yaakaar fi mu toll ni xam nañ ne njiitéram Macky Sall du bokk ci wote yi léegi fa ñoo ragal ne Khalifa Sall ak Karim Wade mii suñ bokkee ay adversaires yu garaaw yu ponkal la ñu nekk mën nañ leen a gañe Bamba Fall moom ma ngay artu Khalifa Sall ak Karim Wade na leen hé faa bëgg ngeen def ndànk attention seen affaire yi sottee gudde te même bu ñu wote woon sax ba mu jàll fa ngeen a war a régler seen diggante ak fisc yéen ñaar ca moom Bamba Fall na xaw kan waaye Ousmane Sonko moom du bokk yi Benno Bokk Yaakaar ñoom ñu ngay ut candidat fii daal Idriss Seck yéen a kaay na ko voilà Idriss Seck moomu soo koy méngale ak Ousmane Sonko seen bëgg-bëgg benn la mooy jiite réew mi waaye seen yoon yi fa wuute de Walf Fadjri yéen a kaay waa Qatar yi naar yi fañ koy jàppale njiitiram Macky Sall daje naag moom ca Qatar ca coupe du monde ba dajewaat naag Karim Wade ci ajug Màkka gii mbaa du fa nar a nekk seen candidat enquête yéen na man daal faa leen di xamal ne wote yi juróom-ñaari weer ci des te fi nii candidat yi benn ci leeragut Khalifa Bengeloum di liggéeyee ca impôt et domaine am na problème de fañ koo porter plainte ne fa tappale njublang 78 moom ak Pape Sidi da Silva di liggéeyee ca cadastre bu Ngor Almadi yéen kaay bi ne ñaari rakk ñoo leen porter plainte Pape Sidi da Silva moom fa ñu wax ne interlocuteur rek la ca woon waaye Bengeloum lu ji njaaga moo njaag 78 ca la woon ngir ñaari parcelle terrain yu ñu leen waroon a jox waaye ba léegi gisuñ dara li ma gis man ci sunu làmb yéen kaay na combat Eumeu Sène la ñuy bëree l'observateur ne Al United fa ñoo fay Sadio Mané fukki milliards ak juróom at bu nekk ngir mu dem footballal leen yéen a kaay bi ne mel ni ko naan Sadio fa war a dem ndax Europe googu mu des amul lu mu fay prouver fi mu toll nii stade yéen a kaay ne ko faa la ci yokkal Sadio Mané fa demoon visiter ji ambassade bu Arabie Saoudi fii Dakar te jokkoon na fa waxtaan ak waa Al Ahli loolu baax na li baaxut te ñaaw lool ma nga xamee ca diwaanu Kolda yaaw fa ngay xool xab xale lu góor lu am fukkat ak juróom-ñaar la xaritam bojji ko xamal yéene kaay bi na faa lañ ci yokkal beneen xibaar bu yéeme te ñu xàtte ko ca chambre criminelle bu ndakaaru fa xam benn xale bu jigéen bu am fukki at ak ñeent fañ koo siif tëddee ko ba pare daal di koy rey abonné leen ci suñu chaîne youtube ngir jot yu wér te wóor aju ci réew